jëf euh, mbokk internet yi ziar nañu leen ñanal leen jàmm ju sax dàkk yéen ñi nga xam ne rek yéen a ñuy bàyyi xel ci solution TV solution info rawatina nag waa diaspora bi nga xamante ne ni duñu tàyyi benn yoon euh, ci ñun di abonné ak partager suñu ay euh, émission di ko bànneexoo saay su nekk ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax nuyu leen beneen yoon ci l'émission des émissions ñu fas yéene di ci ànd ak Sa Ndiogou Meng comme ñu koy defee chaque jour rek leen ko tàmm di waxee l'émission des émissions nag nekk lu dul rek yenn xalaat yi nga xamante ne nii waaye politique yi ak yenn analyste yi ni ñuy xalaat ñu indi ko teg ko ci table bi Alaaji Sanjogu Meng indi ci ab xalaatam waaye nag balaa ñuy xuus ci waxtaan bi dañ koy daal di bàyyi mu yokk internet yi ñuy suivre Alaaji maa ngi lay nuyu. Eh, ma jigéen ñi ngi lay fay di nuyu yi nga xam ni ñi ngi ñuy teewlu nekk ci biir réew bi ci réew di am ci ñëpp mbégte ak kontaante di rafetlu bu baax a baax saa yu ñuy jàkkaarloog askan wi. Mm. ci l' émission des émissions. Mm-hmm. macha allah ñu koy safoo. ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di këram bu baax a baax sénégalais yi nekk bitim réew parce que ñoom ñooy gën a sori gën a yay. maanaam ki li gën a sori. Mm-hmm. ñoom nga war a tàllal loxo. Mm-hmm. wolof da faral di wax ba noppi soo ko nuyu ñi ci biir réew mi parce que xam nga ñi nekk bitim réew seen xel ak seen xalaat yëpp ci biir réew mi la ne. donc ñooñu ngay. Euh, teelloo mbir mi ñi ci biir nga soog a ñëw ci ñoom donc ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante ci yow bu baax a baax macha allah Mbengue Mbodj ayca ñu daal di koy nuyu moom bu baax a baax daanaka tey sax euh, moom ma jox benn sujet daa noppi ca la muy def rek ne ma acca jugal émission des émissions jot na Baye Assane Mesere. <laughs> Baye Assane moom dafa ñëw sàkk xam nga ko tey dama xaw kii quoi mais forcé la ma ko def. ndeysaan Assane moom dafa mel ni l'émission des émissions nattu lañu ko bëgg def. billaay wallaay waaw nattu la ñu ko bëgg a def. du si taay benn yoon <coughs> ñu ngi koy duyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm. di ko ñaanal jàmm nuyuwaale Modou Diouf du Abdou Top lay jàllu ak son yi bu Diop tey nag waxtaan wi du leen rek lu dul euh, li jot a xew. ci diggante weekend bi ak euh, tey ji ci altine ji euh, jëm ci àtteeg Ousmane Sonko boobu ñu yóbboon Cour suprême mañ ca noppee nag ba ñu nuyulalee mbir yi daal dañ koy indiwaat fii ci Ndakaaru euh, mbir yi nag daa di mujjee rek plan B bi nit ñi doon ruuma daat ci suuf Ousmane Sonko daal dina koy teg mu jëm ci Bassirou Diomaye Faye Daouda Mine indi ci ay kàddu yu nga xamante ne ni leeral na ko jëm ci loolu le ne képp ko xam ne rek da nga dem ci bëgg a dem ci candidat candidature boo xamante ne da nga bëgg a indépendant bokk ci benn doon militer ci benn parti du mën a nekk waaye soo jëlee récépissé bu nga xamante ne ni ab coalition moom moo ko moom di nga ca mën a bokk dinañ ko teg léegi léegi ba mu gën a yaatu ñu noppi ca ànd ak ki nga xamante ne nii rek. moom moo di euh, débat bi nga xamante ne ni doxoon na daanaka ci diggante El Malick Ndiaye ak Thierno Diop ci werante yi nga xamante ne ni euh, El Malick sàkku na ngir rek ñu daal di bàyyi di wax loo xamante ne ni suma sonk waxu ko ñu jeexalee ko nag ak ñenn ñi nga xamante ne ni ay candidat lañ nekk ci opposition bi nga xamante ne ni doon nañu. genre di bëgg euh, nangu li nga xamante ne nii moo di électorat bu Pastef parce que yaakaaroon nan ni bu Ousmane Sonko bokkul ci yile moom day daal di ñëw jàppale leen ñu gis leneen tey ñu léegi léegi ñu daal di yaatal mbir yi ba mu gën a ay Aïcha mi ngi noonu moo du ñu ànd ak nag euh, Daouda Mine tey ci suba si li mu wax ci candidature boobu nga xamante ne ni moo di plan B bu Ousmane Sonko ñu xollam ci wax dellu si. boo xoolee affaire candidature code électoral la ciy wax et je renvoie les à l' article L57 article L57 moo ne tout été tout électeur képp ku nga xamante ne électeur nga régulièrement inscrit mën nga bokk ci présidentielle su fekkee ni respecté nga li nga xam mooy condition d' âge mooy amoo lu yées 35 ans ëppaloo lu mat 75 ans nekk nga ku nga xamante ne tu jouis de tes droits civiques et politiques amuloo benn déchéance muy premier alinéa bi mais deuxième ne képp ku nga xamante ne sa candidature parti politique régulièrement institu constitué moo ko mën a porter wala mu nekk une coalition de de de parti politiques régulièrement constitués wala mu nekk euh, entité indépendante yi nga xam dañoo lëkkaloo daal di dal di daal di lay tabb maintenant dañ ne candidat bi nga xamante ne dañ koy tabb ci a euh, par une entité indépendante dafa nekk nga xamante ne mosul ci parti politique wala ba mu cessé militantisme bi ëpp na un an donc tey li nga ciy dégg mooy lan bu fekkee ne dañoo dissoudre euh, Pastef Jomaay Faye Pastef mënu ko tabb parce que dissoudre nañ ko ce plus un parti légalement constitué bu fekkee ne dafa bëgg a dem en tant que indépendant du ko mën parce que ba ñu dissoudre Pastef matagul matagul un an te il a il il il coalition de partis politique beneen parti politique bu am récépissé régulièrement ñu tey bu am récépissé au niveau du ministère de l'intérieur mhm. lëkkaloo ak moom dal di koy tabb comme candidat à partir de ce moment mën na nekk parce que gis nañ ko fi mhm. ñu nga xamante ni amuñu récépissé ñu tabb leen ñu bokk ci ay élection présidentielle gis nañ ko fee. Euh, en dix 2019 ma dikkee ñaar PDS la jóge woon amul woon amul woon amul woon récépissé beneen récépissé la la jël pour mën a participer à des à une présidentielle. donc bu ñu basé ci loolu conseil constitutionnel je pense pas que mën na mën na mën na ko tere mu bokk sous prétexte que dañoo dañoo dañoo dissoudre euh, Pastef beneen bi également c'est par rapport ak le fait que inculpé nañ ko. actuellement nii mi ngi prison mais loolu aussi tant qu'il n'y a pas une condamnation définitive amul lenn lu ko mun tere mhm. parce que il a juste été inculpé kenn auditionné ko dans le fond xam nga euh, instruction bi jeexagul kenn jugé ko à supposer que même mu jeexoon tey tey tey ba ñu jugé ko condamné ko amoon na possibilité def appel et que la décision n'est pas définitive kenn mënu koo tere parce que il ne perd pas éligibilité mmh. Mmh. donc gis nañ fi fii ñu nga xamante ne ils étaient en prison Barthélémy Diaz en l'occurrence bi nga xamante ne ngi woon prison bañ koy dugal ci liste yi euh, élection législative yi ba muy nekk député à l'Assemblée nationale mmh. donc loolu loolu Aïcha mi ngi noonu alaaji dégg nga kàddu yu daw euh, damin yëkkati jëm ci euh, fi mu toll nii nag ex Pastef mën nañu wax loolu il faut ñu am stratégie bu baax parce que mënuñu gis koo xam ne da doon militer ci benn parti bu nga xam ne bi ñu ko dissoudre rek léegi matagul un an il faut ñu dem sàkku ji peut-être coalition bu mag bu am récépissé euh, pour ñu mën a doxal li ñu bëgg a doxal. nga xam nga parrainage àddina. Mm. <coughs> lépp loo gis da koy bàyyi ak ñi nga xamante ni. ñooy ñi ko jàng ñooy ñi ko xam du ñu ay cuune parti boo xamante ni bii taxaw nga pour laaj réew mi depuis deux mille vingt et ba nëga ni liñ bëgg ci yow mënta ne maanaam nasaxal la nelawal la ci wàllu yoon ak yooyu ba léegi lenn mënu cee ne kon buñ la waxee nelaw la Pastef gii kat. ni tànn nañ Bassirou Diomaye fay gëstu nañ ci wàll yoon fi ñu war a aw mm-hmm. ba teg ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye man nag jàpp naa ni candidature Bassirou Diomaye Faye euh, mbir la moo xamante ni euh, ab pion la boo xam ne Ousmane ko dox na ko boo xam ni jaaxal na état bi. Mm. waaw. ci jaaxal gi mu leen jaaxal lenn bokk na ci. mooy que ni lu tax ñu tànn ku nekk ci biir prison bi te am ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ci bitti te ñi ci bitti bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon waxtaanee ngir ñu tànn ki ci prison bi xam nga dalay wan ne la Pastef bokkut ak parti yi ba tey ni nga xamante ni noonu lañ leen tëggee ak ni ñuy doxee bokkuñu parce que boo seetee président Macky Sall ba mu tànnee rek ca la parti ba tas ñii jaar ñi ñii jaar ne te mu tànn ay signe a ngi wane ni sénégalais yi xamuñu ko parce que président Macky Sall toog na ci boppam ñu yóbbante ko ci amado Ba te fekk Amadou ngi toog loolu nekk loo xam ne lu reelu la waaye nag ay signe la yuy montre ne ki nga tànn du waaja Bassirou Diomaye Faye ñu ne tànn nañ ko mu nekk loo xamante ni tey wër na àdduna xam nga damay faral di wax ni euh, Bassirou Diomaye fay bu Ousmane Sonko doon gagné cinquante et un pour cent wala cinquante kii pour cent Bassirou Diomaye Faye mën naa gagné soixante pour cent hmm. waaw c'est parce que mooy ki Sonko yebal bu fekkente ni dañu dem ci ay élection mooy ki nga xam ni moom la Sonko yebal te gëw ma ni gëm naa ni Pastef am na yeneen clé yoo xamante ni bi am na ko yoo xam ni leeragut ba tey ci kii parce que dañuy wuree maanaam gars yi dañu nekk ci ay stratégie ay dox parce que président Macky Sall euh, ni muy doxee ay pion Ousmane Sonko noonu lay doxe ay pion maanaam tey bu fekkee ne ñoom ñaar dañu nekk cote cote dinañ xool nag ca cappaandaw ga kan mooy el tactico dëggantaan mm. maanaam fi mu toll dañu nekkaat ci beneen compétition maanaam dañ ne président Macky Sall bokkut waaye dafa mujj doon entraîneur léegi dafa génne Ousmane Sonko dafa defe ne éliminé na ko mais daf ko delloo place entraîneur maanaam ñoom ñaar ñooy compétir fi mu toll nii maanaam yi ñuy teg ak li Ousmane Sonko di teg maanaam fi mu toll nii ñoom ñaar ñoom ñoo nekk maanaam Bassirou jomaay fay gars yi du ñu gis Bassirou Amadou Ba gars yi gisuñu Amadou Ba Macky Sall lañ gis Bassirou it gars yi gisuñu Bassirou mais Sonko la ñu gis ci kanam Bassirou même bu dee demaat nañ ba ci kanam. mu soppee ko parce que Sonko fi mu toll da ko génne mën na nekk sax lièvre boo xamante ne bi gars mën nañ topp ak coow li te fekk du moom. Hmm. mais loolu yëpp mooy charme jeu bi. d'accord maanaam ni Pastef kase li nga xam ni mooy jëwam ba noppi nag maîtriser ko xam nga nga def li nga def ba noppi maîtriser ko hmm. c'est très important maanaam verrouiller mbir yi nga xamante ne bi yow loo ne lii lii la. Hmm. leneen la ngay nar. peut-être sax kenn xamul parce doon wax ñoom amuñu plan B. waaw amuñu plan B. plan A am. waaw parce que ki ñu tànn rek mooy plan A. Hmm. plan B. Hmm. parce que ki ñu tànn ak ku mu mën a doon même bu doon yow mii lañ tànn Sonko nga Sonko mooy plan A mooy plan B mooy plan Z. maanaam ñoom ñëpp dañuy wëlbatiku. Hmm. doon Sonko maanaam tey bu la tànnee yow ma jigéen jóob nit ñi gisatuñ ma jigéen jóob Sonko la gis. loolu mooy li nga xamante ni mooy maanaam tey waxoon naa la fi ne la ñaari mbir yi ñooy li ne maanaam Sonko dem mooy bi gën ci président Macky Sall mais gis nga bu keneen demee ku sonk mooy yées ci ñoom te defe naa ne nag ñoom li waroon a gën ci ñoom mooy ñu fexe woon ba Ousmane Sonko ñoom ñoo waroon a xeex pour Ousmane Sonko dem mais fi mu ñu ngi ubbi beneen bunt boo xamante bii. seen njariñ ñëwu ci. mais El Hadj yaa ngi wax léegi euh, affaire compétition est-ce que tamit li dal du baax puisque que Sall moo moo ko tànn ne euh, moom la ñuy jiital 2024 euh, gars yi commencé di génn di xas ki nga xamante ne nii moom moo di Bassirou Diomaye Faye di ko traité de salafiste ñi naan mosul dem ci kër xalif général yi pour ziar ak yooyu noonu est-ce que du dem ba fi ñu dugal du Ba ñu dugal ko. non ñooñu ñu ngi koy defar loolu lañ looloo defar Sonko di salafiste terroriste. doo dem si xalifi gëmoo dara looloo defal Sonko parce que loolu moo tax nit ñi di gëstu kii mooy kat bu ñu la gëstoo rek xam la Basiru kenn xamul ko fi lu ñaaw sénégalais bu honnête la liggéey taxaw nekk ci li mu nekk fii Sonko jaar fa la jaar. Basiru boo gisee lu tax kenn mënu koo topp maanaam li ci Sonko yëpp a ngi ci moom bu fekkoon ne sàccoon na dërëmu état bi léegi tey ay problème dal ci kaw. mais dalay wóor ne la ku jub la. te mës naa ko seetaat benn émission ci may Maimouna Ndour Faye muy expliquer jaar jaaram. Mm-hmm. maanaam dafa am yu bari yoo xamante ne bi nit ñi parfois duñu xool nit ki. Mm-hmm. parfois duñu xool nit ki maanaam ñi nga xamante ne bi tey ñoom ñoo composé Pastef. Mm-hmm. maanaam ay nit lañ yoo xamante ne bi dañu nekkoon ci fi nga xam ne fi lañ nekk maanaam mënoon a dund te duñu am benn jafe-jafe. mais jafe-jafe yi ñu nekk nii jafe-jafey Sénégal dong lañ ko rek bëgg a lijjanti jafe-jafey Sénégal moom moo mel ni lu lëjal seeni mbir. mais bu ñu fàtte ne ay jafe-jafe moo ko dugal ci kaso bi bañ naka ba bi affaire yi Sonko yi génnee daanaka li ñuy toppee Sonko moom lañ koy toppee est-ce que tamit yooyu mënul fexewaat ni ñu yëngalaatee dossier am pour ubbiwaat yeneen i mbir yoo xamante ne. waaw nañu ubbi fi mu toll nii même bu ñu ubbee dossier yi day gën a neex rek. donc fi mu toll nii ñoom ñi ngi ci kàmb ñi ngi ci pante boo xamante ni bi maanaam ñoom ñi ñu jàkkaar lool ñoom Pastef xam nañ ñi ñuy bëgg mais ñii xamuñu li waa Pastef bëgg loolu mooy li nga xam ni mooy l'essentiel ci mbir mi hmm. maanaam Sonko maanaam dafa mel ni dafay gis gars yi mais gars yi dañoo nekk ci lëndam ñoom gisuñu ko fi mu toll nii hmm. parce que ci jamono ji ñu jàppoon ne man maanaam li ñu tegoon yëpp defe ne buñ ko tegee. day jeex affaire yi jeex la ñu tegoon yëpp dafa faussé. maanaam yi ñu tegoon yëpp doxut saa ñu tegee dara ngir gën a suul waa ji waa ji gën a jëm kaw ba tey ji compétition am diggante président Macky Sall ak candidat président Macky Sall maanaam Sonko ak Macky Sall ñoom ñooy nekk ak candidat ñoom ñoo nekk li nga xamante ni bi tey ñoom ñooy compétir président Macky Sall yi dem na de parce que day compétir boo amee défaite am na défaite day mel ni Aliou Cissé mu yóbbu équipe ñu gañe ko mhm. mu naan man bokkuma ci ñoom Sadio Mané moom defet bi mhm. déedéet yow yaay borom defet bi mhm. yaay yaay coach bi d'accord waaw moo tànn équipe yabal ko Sonko tànn équipe compétition bi demaat na. ah nañ ñaan yàlla rek lépp mujje si jàmm. ak fekk tamit mu nekk li sénégalais yëpp bëgg. ñu waxtaanee leneen euh, débat bu wula bu amoon ci diggante na Diop ak El Malick lépp waralu ko du kenn ku dul Ousmane Sonko mi nga xamante ni nii ñu ngi jéem a déformer ay waxam euh, kii di El Malick taxaw daal di koy défendre comme ni mu waree ñu xool vidéo bi dellusi. en deux mille vingt deux moo doon dem leen jël Macky Sall Macky Sall nañ ko def comme Samuel Doe ak ku xam histoire Samuel Doe bu bàyyi. xanaa yaa defar vidéo bi. ban vidéo ban. bi may wax sànq. ban ban vidéo ndax lu tax nga ne maa ko defar pourquoi. Macky Sall loolu la wax na euh, Ousmane Sonko loolu la wax. la vidéo tronquée la. naan nañ ko def comme Samuel Doe. def comme Samuel Doe waxul l'honnêteté intellectuelle l'honnêteté intellectuelle tànk rek l'honnêteté intellectuelle t'impose à ne pas tronquer les choses et à dire la phrase quand tu la condition la conditionnalité là tu biaises tout et c'est ce que tu as fait non encore qu'est-ce que vous la la nga tuddee condition kuy taxaw meeting wu pur Amadou Bari waaw nga wax ni waaw na bàyyi opposition yi muy attaqué. waaw xam ngeen ne jeunesse bi fi toog fii ku leen joxoon ay ngàndaay ñu wàcc xeex ndax am nañu doole. waaw teg condition su euh, su euh, et que su continuer di attaquer euh, opposition bi di peuple bi mën nañ dem génne ko def ko comme ni ñu def Samuel do tu poses une condition nga ñëw nga ne nañ génne Macky Sall def ko Samuel Doe c'est comme si Macky Sall quand il disait on va le déloger au palais il avait posé une condition. Samuel Amadou Bari. du Kër Massar non yaa ngi juum. Ah? xam nga mooy li ma la wax rek seen. montage yi da ngeen di seen montage c'est pas trop important. c'est important c'est important xaaral ma ñëw fu mu ko waxee sax c'est pas trop important dama doon laajte rek parce que man naa jàpp ne sax. Kër Massar da ko waxee après dinaa ko vérifier. non géejawaay la. dinaa ko vérifier même bu dee géejawaay dama ne te loolu la wax te ma yokkal la ci beneen affaire. non dee leen wax li muy wax tamit. Hmm, waaw moom moo taxaw mu ni malgré liñ ma def yëpp baal naa ñëpp déglul de déglul baax baal naa ñëpp. waaw. Mm-hmm. limite tendre la mais au président Macky Sall. lancer ko appel. ne ko mu organiser li muy organiser pare dem. te président Ousmane Sonko ñi ñu ko jege xam nañ ko. xam nañu ne xolam du kuy fayantu. loolu la ko yàlla bindee ñu ko jege ñëpp xam nañ ko. moo tax. non attention il faut pas il faut il faut pas confondre les choses ñun amuñu justice amuñu nervi amuñu dara xam nga lan la am suñu jëm. jërëjëf mi ngi noonu alaaji dégg nga euh, Thierno ni mu déformé euh, propos Ousmane Sonko yi mais El Malick def na li ko wax muy corriger ko comme ni mu waree. waaw xam nga Thierno bi ko El Malick di euh, jubbanti. Mhm. dafa teel a nangu xam nga teel a nangu moom day yombali duma waaw léegi dem na sax ba ne moom moom moo doon wax de waaye dafa dem ba caagi nee na da doon laajte rek donc te dafa ñëwoon pour joxe ab xibaar donc loolu lii nag dafa dal Ousmane Sonko ci yu bari ay nit dagg ay waxam manipuler wala ay nit jël ay waxam dugal ko ci beneen contexte boo xam ne bokkutoon ak bi muy wax loolu lépp ngir diaboliser ki nga xamante ni kii mooy nit ki loolu nag baaxut parce que nit moom boo demee ak loo ko contre contre boo demee ba di wax ay waxam rek wax ko na nga xamante ne bii noonu la ko waxee bu dee xamoo ko wóoru la te nga war koo wax foo xam ne fii ay junniy junniy doomu aadama dañ lay déglu te bu buñ la dégloo mën nañ laa gëm ci li nga xam ne moom ngay wax hmm. donc del mesurer li ngay wax wala la ngay wax na la wóor ne la ki ngay waxal lii la wax ñëpp jël nañ fi kàddu googu nga xamante ni moom lañ doon wax ku dee sa yaay juraat loolu nga xam ne feneen la ko jëlale jëmale woon ba ne leen dee sax du ci am mm-hmm. maanaam ni xale yi di wax naan ku dee sa yaay juraat mm-hmm. te sax dee du ci am ñu dagg loolu daal di indi ku dee sa yaay juraat mm-hmm. ba noppi dëkkale ko yëpp ba tey ñu bari ñoo xamante ni dañuy jéem a diaboliser Ousmane Sonko foofu la ñuy jaar di ko jéem a diaboliser mais nit ki day dem ba yëg ni kiikat kat li ma koy waxal du lii ñu fi wax naan léegi almet bi nga xam ne moom la koy yoroon kii naa ko léegi nag bu mu yoree réew mi màggal dootul am kii dootul am maanaam muy nettali ñu jëlaat wax jooju mm-hmm. jël ko ko daan ne lii la wax mm-hmm. nga xamante ni bi euh, euh, yàgg nañ ko def lu ni mel mais nag lépp luñ ko mës a defit ci lu mel noonu euh, yokk na ko aussi tamit parensaay ay soppe ay nit dinañ dem ba dégg gëmoon leen ba taxoon ne loolu doo nga tax ñu bañ ko dem ba découvrir ni loolu du dëgg ñu wëlbatiku daal ne ah li nekkate dañ ko ko sosaloon léegi ña doon manipuler pareen saa yàgg-yàgg avec le temps dañuy dem ba ñoom ñooy perte li nga xam ne mooy kii li El nag def bon am na solo euh, delloo si waat ko waaye tamit sa waaye tamit moo teel naa accepter li nga xam ne euh, mooy dëgg gi mm. waaw am na ñoo xamante nag bu doon ñoom la ci palaato mm. du ñu accepter mukk dëgg gi mm. maanaam dañuy gën a xuus. Mhm. waaw le fait que mu accepté tamit loolu lu baax la. nga xam ni nga nangu ni juum nga. Mhm. li nga wax du nii. Mhm. loolu aussi tamit euh, baax na. baax na waaw d'accord ah, dañuy wax nag euh, ci yi nga xamante ne nii <laughs> ñoo nekkoon euh, mën naa ne ci coalition Yewwi Askan Wi ak yeneen i opposants ñu jàppoon ne dinañ mën a séduire ñi nga xamante ne ni ñoo ci militant yu Pastef tey. ñu gis ni ñu doon jortu amul loolu ban jàngat nga si def. waa xam nga euh, dafa am xam nga moom laal doon wax ne la. Hmm. parents yi ñu bari dañuy nekk ak nit taxamuñu ko. Hmm. maanaam am na ñu bari dañu jàppoon ni Ousmane Sonko moom bu demut rek. Hmm. Eh, demut te foofu sax lañ ko doon puus. Ousmane Sonko tamit di leen wan plan A. B C ba Z lépp c'est Ousmane Sonko. Mhm. ñoom ñëpp ñu àndandoo ci même discours mhm. c'est Ousmane Sonko. Mhm. léegi nag man bon man politiciens yi laa gis ni nag ñoom ñooy politiciens yi nga xam ni bëggoon nañu aakimoo ay kartam man dama jàpp ñu ñu naïf lañ quoi maanaam xamuñu. parce que nit du ñëw ci benn laps de temps mu ñëw romb la ci wàllu politique dépassé la. def jéego yoo xamante ni bi ay pas géant ne la fif te boo arriéraatee rek euh, deux mille sept xamuñu ko ci wàllu politique kenn xamu ko te yow xamoon nañ la nga tolloon fenn fi Sénégalais yëpp xam la mu ñëw tàmbali ay 2014 xaw ma 2000 kii. 2014 mu commencé ñëw ne la fif yëgoo fu mu jaar mu jékki-jékki mu tiim la. nga jàpp ni cuune na ba yow ci sa jëmmi bopp li mu liggéey nga mën a ñëw jariñoo ko loolu moo lay wan ne la euh, muusuñu. Ah, mais alaaji bu ñu dàq loolu kase ku mel ni Barthélemy Diaz taxaw na fii wax ne euh, candidat yi nga xamante ne ni ñoom ñoo àndoon ci coalition pare nañ ku gañe ñu dem jàppale ko kon kooku kay xaarul rekk waa ji ñëw jox ko li mu moom. kan Barthélemy Diaz nee pare na. daf ne pare nañ ñoom. si seen coalition bi ñu àndal. Mhm. ku képp ku ci gagné rek dem deuxième tour pare nañ pour jàppale la donc kon bu ñu wax rek ne ñoom dañu bëgg a nangu euh, électorat bu Sonko. yaa ma ko wax. Ah, mais alaaj déglu nga loolu bërki ah, di mu njaay Barthélemy Dias wax ma loolu li nga wax de question wala yow ma question bi <laughs> bi nga posé la ma soxla woon carte kii yaa ko wax <laughs> may tontu nga ne ma waxee bul wax li <laughs> d'accord néew ma la néew ma la loolu rek. moo am kon da wax lam mooy sa question sa question lan la <laughs> dama ne. am na ñeneen. comme Barthélémy Diaz. am na ñeneen comme léegi ci man naa ci ñeneen ñooñ ala yaa gën a comprendre li may wax. Ah, taxawal rek. waaw xam nga dañu ne gars yi dañu fogoon ni. bu Sonko bokkul rek. waa ci gars yi laa ne nag. waa léegi ma ni gars yooyu ci seen biir. waaw am na ku taxaw fii ku mel ni maire de Dakar. mu ni moom ñoom pare nañ ko dem. deuxième ko génne ko ci géew bi quoi parce que. Ah, kaay kooku moom ma wax la leen ci politique. Hmm. Euh, gëw ma ni Ousmane Sonko mën naa taal la mën naa nekkaat ak ku ne. Hmm. mais Barth gëw ma Ousmane Sonko nekkaat ak moom. ah lu tax. ak dama xam nga lu tax. Ah. Sonko mën naa nekkaat ak sax xalifa Sall. mais Khalifa parce que xamoon na ni Barthélemy non xamoon na ni Khalifa Sall politicien la mais Barthélemy dafa ko woon politicien frère am la ko jàppee woon hmm. maanaam jaraloon na ko lu ne loolu mënatul am diggante Ousmane Sonko ak Barthélemy hmm. mënatuñu melaat ni nga xam ne mooy maanaam Barth ñemeetu la jàkkaaru Ousmane Sonko sax di waxaat lu jëm ci wàll yi non mais ba léegi doomu ndeyam la ko. constaté da mm, xeetu ndeyam waaw moom jam nit ki paaka ci ginnaaw naan ko ay doomu ndey xam nga loolu ay mbiri caaxaan la donc xam nga ñoom. Sonko du politi politicien la mais du politicien ñu doon. kon est-ce que du moom moo def erreur dem ànd ak non non parce que moom anti la doon woote li Sonko récolté moo ëpp solo ñoom ñu kii. xam nga lan la récolte xam nga lan la fa lan la fa kii. lim leen ji. loolu la déqi ñee li ñu ko ji réew nga lañ déqi maanaam liñ naan mënoo ji anaana banaana sax fa hmm. Sonko ngor la leen ji ngor googu la teqiwaat dëkk bi yëpp dañuy wax ne Sonko gore ak li mu leen defal hmm. ñee lan lañ ko ji liñ ko ji loolu lañ jeqi lu ñu leen di wax boobu ba nag ni ñu ngi wër di setal seen bopp naan wóoruñu hmm. ay ay li ñu déqi soxlawuñu ko donc kii li mu ji moom rek la déqi donc te bi mu ko déqee woom le na nag fi mu toll ni bu ñu ko waxoon ne ko niñ koy waxee ne xaw ma ñaata mbaam nga ci li nga xam ne mooy kii li bari leen na ci lool ci li mu déq parce que defe naa ni moom mbirum ngor mm. eh, am na ci lu bëree bëri sénégalais yu bëri yu ko topp nag yu ko gën a topp loolu lañ ko toppee mm. sénégal eh, nit ñu gore lañ mm. ñu gore lañ te nit ñu am kóllëre lañ boo jàppee ni mën nga def yenn yi ci politique après ëllëg si biir mu jariñ la yaa ngi nax sa bopp mm. waaw mm. macha allah macha allah ah, en tout cas ñenn ci ñoom de jàpp ñenn ñi jàpp nañ ni ba léegi nii waa ji moom du bokk te mën nañ ba tey récupérer électorat même bokkut mm. moom ci jëmmi boppam ndax Ousmane Sonko xam nga seega Ousmane Sonko bi mu ñëwee dafa jaay nit ñi li mu leen jaay jaay leen sa projet la leen jaay. Mhm. nee na projet bi du man. projet. ne leen lu tuuti laa ci. Mhm. projet bi nag du nit. du nit ki maanaam képp koo xamante ni kii nekk nga ca kaw rek yaa jiite projet boobu. Mhm. dañ daan wax ne xare bu musaanaam drapeau l'islam dañ koy téye maanaam kuñ jam rek nga jox keneen mooy ñëw téye drapeau bi yëkkati ko. maanaam fi toll nii ci loolu lañ nekk. képp ku gars yi jam kii rek. keneen tee drapeau bi jamono ji drapeau baa ngi ci Basiiru moom la sénégalais yëpp di xool. buñ ko foqatee ci moom nag. keneen tee ko. keneen kan. keneen ñoom ñoo koy choisir du man maa koy choisir. Hmm, du ma maanaam amoo koo njort. déedéet du ma njort kenn. Hmm. déedéet xam nga lan mooy problème li mooy puissance waa Pastef nekkuñu ñu njortu kii ak kële. Hmm. maanaam dañuy toog rek ku ñu leen joxoñ ñu ne moom la. waaw Abbas de nee ñoom seen lépp pare. non ku ñu leen joxoñ rek ñu ne diw la. a bokk ci Pastef ku nit ñi xam waaye bés bu ko joxoñee rek ñu xam ne waajaay ngi maanaam day mel ni leer gu jógee ci kii dem ci hmm. ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw joxante dig daje incha allahu yi <laughs> incha allah beneen yoon ci incha allah mi ngi noonu di jaajëfal ko bu baax a baax ci xalaat yu rafet yi mu fi indi di jaajëfal itam képp koo xam ne rek yaa ngi bàyyi woon sa yitte du ñu seetaan ak commentaire way leen di ko defee noonu rek tey moo du Modou Diouf du Top lay jàllo gërëm nañ leen sant leen jox leen di daje beneen leen di incha allah rabbi